addarsu saabic muy septième leçon bi kayfa urattibu mixfadati nan laay organiser sama saag bi ba lu ne tege fu mu war a tege mixfadatu kutubi sama saag bi may def livre mixfada moom la ñuy wax cartable di ko wax ba tey saag bu ñu waxee mixfadatul yad mooy saag à mooy saag bu ñuy ŋàbbu ci loxo saag yu ndaw yi أضعوا فيها لما يتكي ساق بي اللوحة الحجرية مم لن يوخ أردواز ولا تابلت دي فير موي أردواز كتاب القراءة أك تيري بو خمني تيري قراءة تيري بو جمتوا لكتير كتاب الحساب أك ليفر دي كالكيل تيري بو خمني جانج لكالكيل الدفاتر أك أي كايه المسطرة أك الرجل wal miqlama ak plumier maanaam jumtukaay boo xam ne dañ ci dañ ci bigi teg adawaati samay jumtukaay samay bagage ala tawilati ci kaw taabal bi uiduha dama leen di delloo siwaat ila mihfadati sama cartable maanaam su ma noppee nag jumtukaay yëpp nag ma duglaat ko sama biir saak fii mihfadati sama saak bi am na thalathatu kutubin ñetti téere wa daftaraani ak ñaari kaye wa lawxun xajar yi ak benn ardoise loolu moo nekk sama biir sàgg al miqlamatu muy plumier adau damay teg fil miqlamati ci plumier bi al aqlaama ay pilim wala ay bik war riyacha ak ay pilim wa maskaati riyachi ak poignée de pilim poignée des plumes fii miqlamati sama plumier bi am na xalamaani ñaari big wa maskataani ak ñaari poignée wa richataani ak ñaari plume wa mim xaatun ak benn gom gomme moom lañu ñu bu bindee loo xam ne nii dañ caa juum mbaa boobu bëggu mu demee noonu nga effacé ko كتاب القراءة تيري لكتير مفيد لأم جرين له يضحكني دفمي ريلو بقصصه كي قصة يم إنده قصة موي استوار ولا بوك ناراسيون موي أي نتل أي خيو خيو يوحب نفا خيوان ولي ملو كتاب الحساب تيري بكالكيل مليء دفو فيس بالرسوم كي أي ديسيني والأرقام أك أي نمرو da ci def ay dizaine def ci ay numéro yu bari ci téere calcul bi kitaabul inshaa saxiix téereb al inshaa saxiix ñu téere bi jàngale wàllug rédaction wàllug ni ñuy bindee ak ni ñuy taalife ay jumla ak ay wax ni ñuy bindee ay thème yu allimuna moom moo ñu jàngal al kitaabata saxiixata écriture bu baax bu correct mooy tax ñu mën a bind mbind mu jag uhibbu damay bëgg al aqlaam al mulawwana ay film multicolore maanaam film yo xam big yo xam day am ay couleur yu bari arsum damay diseene ala lawh al yi ci arwaz lil muhadatha arini mixfadata kutubik wan ma sa saag bi ngay def sa livre cartable bi ngay def sa livre maada tadaaw fiha lan ngay teg ci biir cartable bi axrij kitaabal qiraa génneel téere lecture bi أريني كتاب الحساب وانما تيري كالكلبي هل تحب كتاب القراءة نخبغنغ ليفر بيجانغ اللكتور ما لون غلاف كتاب الإنشاء بان كولور موي كلور كوفرتير تيري إنشاء بي فقو بي فقو تيري إنشاء بي كولور بان لير ما هي صفات قلمك ين موي سملوكاني بيك أنا مسبك بي ين ملو لير limaada tuhibbul aqlaam al mulawwana lu tax nga bi lu tax nga bëgg ay plume yoo xam dafa nekk multi couleur in sax maa yeli kitaab yi jadidun sama téere bi dafa yees mistaratu aadil reegalu aadil mulattaxatun bil xibri dafa taq ankar miqlamati min xashabin sama plumier ci bois lañ ko defaree bois mooy dénk ak mil jumala taaliya na nga complété phrase yi di ñëw umsiku damay téye nga àggale adaahu dama koy teg ci nangam adaahu fii uxibbu aljadida damay bëgg nangam bu yees aatani bi nadafati damay yittewoo ci setuk nangam adxil kulle kalimatin na nga dugal baat bu nekk moo bu nekk min alkalimati taaliyati ci moo yi di ñëw fii jumlatin mufidatin ci jumla bu am njëriñ maanaam baat yi di ñëw baat bu ci nekk da koy jël def ko ci ab phrase bu am njëriñ mihfazatul kutub saak de livre saak bu ñu def téere yi kitaabul qiraati téere lecture alqalamu pilim wala boog bik kitaabul xisaab téere calcul